kenn mënu koo wax ba mu daj génn ci sëñ Massamba Diop Sam sëñ Massamba Diop Sam dafa nekk loo xam ne baatin la ci biir te baatin boobu jàpp naa soxna maam Faati ni moom a booleeg yow ndax yow Diop dama am ci yow confiance nga am ci man confiance mu yegg ci li ma àndeek yow du sax politique. may wax tey nag alhamdulilahi rabil alamin ndax ni mu sewoon bis bii bu yàgg ca campagne bi ba léegi may waaj a ñëw te na mu demee rek la mënoon a demee moo tax tey su ma nee bisimilah ci naa ci Touba ni fii laay jëkke ci kër sëñ Massamba Diop Samb ci njabootu sëj ma Massamba Diop Samb ci sëtu sëñ Massamba Diop Samb bii ci sama ndeyjoor ah yaakaar am na man gëm naa ne yaakaar am na yaakaar am na te yaakaar jooju. dama koy jaayanteeg yéen tey jii ndax coono bu ngeen sonn rek xam naa ko réew mi ci boppam moo sonn soo gisee ñu ni dafa sonn dañu sonn yërmande amatu fi dimbalante amatu fi nooflaay amatul ci réew mi jàqare am na ci am na ci réew mi kenn jotatul ci alal réew mi te soxlay réew mi ni xus te kenn jotul ci alal ji looloo tax ñu ni ah newuñu góor ñi dañoo tële de ndax ñoy sunuy borom kër ñoy sunuy doom ñoy sunuy wajur waye nak dañ ne fi fu yërmande ji nekk nañ ko fa séti fi yërmande ja nekk nañ ko fa séti ki nga xamni mom mo yoré xalaatu kër gi mo yoré xalaatu famille bi mo yoré fébaru xalé yi mo yoré fébaru famille bi mo yoré dundu famille bi muy jigen jox len ko réew mi té bu boba da ngeen koy jox jigen ju ngeen xam ma yàgg ak yéen lool yàgg ak yéen ci ministère de la famille yàgg ak yéen ca mairie ya yàgg ak yéen ci lépp lu jigéen di doon ca fa ñu dëkk ñoo ko fa njëkk a doon yàgg ak yéen nag ci nekk nag taalibe Serigne Touba waaye nag mu am leneen loo xam ne itam dama koy sàkku ci yéen muy ñaan yàlla goo xam ne ku fi nekkal sëriñ Touba rek am nga nitu àddina koo nekkal tey nag kii sëriñ Touba. di Cheikh muntaha Cheikh muntaha di jëwriñu soxna jaar kon faaw soxna jaar jël cëram te man mi nak ma japp ne ma yaay faalu soxna jaar kon suma ma fi ci kër sëñ Massamba job Sam fi la koy wakal bam faté waxal ma sa mam sëñ Massamba dafa am yaay faal bu bëgg ligéel Touba dafa am yaay faal bu bëgg ligéel soxna jaar dafa yam yaay faal bu bëgg a ànd ak jëwriñu soxna jaara sañ sëñ Muntaxa Mbàkke loolu moo tax ma ni léegi du ma leen dig ni leen bu ma paree damay defar damay damay damay defar fii ba ndox mi dootu fi ñëw duma leen ko dig dama leen koy won damay ànd ak yéen ba ca ndox ma ngeen xaacoo ma xaacoo wan leen ni leen ndox mi jaaduwul te ñi fi bàyyi ndox mi nekk fi dimbale leen faale leen jële leen leen il faut il faut ngeen xam lo xam ne seen biri bopp yéen ko mën régler régleel seen bopp carte wi fokh ngeen xam carte wi lu muy jëriñ fokh ngeen xam carte wi njariñ gi nga xam mom la leen mën andil fokh ngeen xam gi lu mu leen andil fokh ngeen am seen cadeau jëlaat leen seen cadeau defe nga ne ndox mu ni ngai ngay jël alal di ko pasar pasar fu nek jël alal kaaw ko ngir sa njabot bay njabootu jambur ci bir ndox mi dans le dénuement total c'est pas normal ce qu'il faudrait ce qu'il faudrait c'est sensibiliser éveiller les consciences leur dire l'utilité de la carte l'électeur aujourd'hui grâce à la carte le Sénégalais a son destin entre ses mains et pour cela Touba ne peut pas se départir de ces inondations Touba n'a pas son assainissement. Touba n'a pas ses infrastructures. Touba est en dehors de tout programme d'émergence. Il faudrait que ça cesse. À Touba, il y a des Sénégalais. À Touba, il y a des habitants. À Touba, il y a des familles. Les familles sont dans le dénuement total, ce qui n'est pas normal. Il faudrait y remédier. Et, mesdames, vous avez la possibilité gérer cette situation. Vous avez la possibilité d'y remédier. Prenez vos cartes. Faites-en une bonne utilisation. Votez pour Aïda Votez pour Aïda Mettez celle qui a pour souci de vous émerger devant vous. C'est ce qu'il faudrait. Je pense que ce régime a montré ses limites.